di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi voilà merci beaucoup. alors naa tey ngay jël soxna sa mbokk sa xarit sa àndandoo ñëpp ñëw teewal kontaan rek laa def ah, parce que nga woote yomb na mais nit ñi dagg seen ay yitte te ci tabaski la ñu jugee ñëpp war a activités yi yaakaar naa bu ñu bàyyee lépp ñu ñëw fekk si la ça veut dire mooy am na foo am na fuñ la teg voilà sant yàlla bu baax julli ci yonent gërëm ñi nga xamante ni ñëpp ñëw nañu. d'accord alors nga am soxna ci ay fan yoo xamante ni yu néew parce que ñu bëri nee nañu mariage bi fast track la da nga koo yàkkam ci gaaw toog ana lan ngay wax ci loolu nga xamante ak soxna. fast track mooy lu jot yomb voilà dañu xamante récemment yàggul dara mu nekk nit ndaw si jigéen bu am kilifa voilà te lu baax boo koy def euh, da nga ciy gaaw. loolu rek la mais wax dëgg yàlla bis ni tey fekkut ñu yëg ne ñun dañuy takk jabar. ah bon waaw. c'est yëguñu ko woon rek. xam nga koy maye at taalibu lil matlub kii sàkku eh, amut lu muy dogal ci ki sàkku voilà yow da ngay dem waxtaan ak jigéen ay kilifaam ñooy maye ñooy jàpp seen bis dañ lay woo rek ne la eh, bis sàngam lañ lay may nga préparé wu dem voilà. alors kon kon temps bi ngeen nekk maanaam génn bi xamante bi yàggul noonu daal. ñu xamante nañ depuis décembre. loolu waaw yan gis ci moom ba ko bon en tout cas baax na yaru na dal na ko te jàmbaarkat jàmbaar te liggéeykat la voilà li ci des nag mooy dañuy ñaan yàlla rek euh, daal cat bañ ci dugg voilà ñu àggale ak suñu sago loolu rek moo ci am solo. intéressant parce que gis nañu TikTok bi en ce moment ni mu yëngatoo xale yu jigéen yi nga xam ne dañ doon dugal say vidéo di supprimer ne vraiment da nga da nga leen woor polémique bi mu am ak ah man bañ ma nobee yëguma ko woon te des na ñi ñeenti ñetti place nañ ñëw waaw des na ñetti place ah ah wala ñaareel la ñetteel la ñeenteel la waaye terewul daal déet sama xel demut ci dara de yéen a question rek ma tontu leen. <laughs> mais tamit gis nañu ki nga xamante ni moo di sa diggante ak Adji Sarr bi nga xamante ni polémique bi bari woon na fi ñun da nga doon génn génn bu sincère ba sax li nga xamante ni moom moo di problème mu famille moo ci am ba takk bi amul est-ce que du loolu moom tax nga gaaw yàkkamti lii maanaam faj mer daal la ko Sénégal yi mën a tudde ñeen Sénégal yi bu loolu ci la. loolu duma ci wax comme euh, euh, <laughs> ma ci boo sourire waaw nit ñi moom li ñu jàpp sama yoon newu ci ah man lim li nit ñi déglu leen ma yéen journaliste si maanaam li nit ñi jàpp loolu du man voilà man li may intéressé rek mooy man ci li ma nekk lan la man musuma euh, def wala may calcul pour nit yi nag loolu yaakaar naa yéen ñi ma xam ñëpp xam ngeen ci dara lépp lu may def damay xool sama digganteeg sama bopp ak sama digganteeg yàlla mu arrangé ma parce que nit ñi tamit kenn mënut ta dab seen bànneex ah voilà. setalu ma sama der de bu fekkee sama der daal looloo ko mën a taqal nag continuer di taq ah bon bëgg dut bi daal moom nekk fi daal. ñu leen di sikki sàkka rek yéen comme sikki sàkka moo leen ci intéressé laaj leen ma ci madame Souris. Hmm? bu ngeen fexee ba ma wax ci loolu de xam ne ay ndaaraan te ngeen ma laaj ci madame Souris mi man monsieur Souris ma tontu. madame madame Souris monsieur Souris dinañ si ñëw gis nga xamante moom moo di son yi bu télécom malgré li nga xamante moo di seen ay différence ak seen ay coow yu bëri seen ay wax polémique dafa am ci suñu diggante amuñu benn xaar ma yàlla yàgg naa ko wax dañuy waxtaan ci lu kenn yëgul bu amee bis damay dem teewal ko bu ma amee bis damay dem teewal ko li am solo rek mooy que ñun daal séq nañu jàmm kenn ku ki nekk mu ngi liggéey euh, style de travail yi nag xaw na différent mais loolu aussi c'est important loolu moo ci jafe maanaam teg bëgg-bëgg yi mooy tax marchandise yi di jar voilà ay frère lañu li mu def yi tamit wax dëgg yàlla nekkul lu nekkul lu lu yomb en tout cas ñu sant ko bu baax gërëm ko ci li mu def ndax rëy na lool ci ñun waaw. ñu bari dañu yéen ñaar yéen a doon créer coow pour am buzz pour sénégalais di wax ci yéen pour ngeen mën a def seen marketing euh, mën a jaay li ngeen bëgg a jaay mais mosoo leen xuloo mais looleen doon créer la pour nax sénégalais lan ngay tontu ci bon ndax mas nañoo xuloo mosuñoo xuloo loolu du sujet bi nit daal la ku ñëw ma am bis mu bàyyi yitteem yëpp ñëw fekk si ñu. ñu war koo sant bu baax gërëm ko la weesu nag que ça soit positif ou négatif weesu na voilà dañ koy jël teg ko suñu ginnaaw incha allahu rabbi li des ci suñu dund fas yéene wu ma kenn di ma dégg may wax kenn lu ma ko war a wax muy son bu muy keneen parce que nit nag wax waaw waaw parce que nit day am fooy toll maanaam ngay wut tur day am loo xam ne jaadu na yell na mais am na fooy toll nag da ngay concentré wu liggéey tabax sa avenir parce que li des ci suñu Sénégal gii képp ku góor góorluwul nekk ci liggéey nekk ci lu ñu xam parce que tappale doxatul caaxaan doxul ah bër yu doxul yooyu yëpp doxatul parce que dafa xeewi ah xuloo dafa xeewi dàggasante dafa xeewi xassante dafa xeewi xeebaate dafa xeewi li am solo de kenn ku nekk nawloo sa naw la ngeen ànd liggéey li ci des amul solo. kon kon yéen su ma leen déggee foo foowee foowee xelu Sénégalais yi ci ngeen di tabax seen avenir ni nga ko bëgg a ni nga ko bëgg a waxee. ñun dañuy liggéey de. ah da ngeen di foowee yow mii wër di net li nga bëgg cee tabax sa avenir de ah waaw ah, ñun dañuy ñun dañuy liggéey. dañuy liggéey de dañuy yow da ngir xuloon ba noonu nag may posé ay question. <laughs> ah di da nga da ngeen yéen jaw fara jaw kontaan naa loolu waay. xam nga da ngeen di jote leen dara te tout le temps si yéen am ay tiraay maa xëccoo beeg yu mel noonu. kañ nga ko gëj gis. Ah, non non mais diñ koy gis. a na taxaw nga fi ne yaay jaay lu baax waaw yaay jaay lu baax moom tamit taxaw la la moom tamit moom mooy jaay lu baax ngeen ngeen ngeen nekk fii di xëccoo. waaw science bi na levé. Mhm. dañ la xam sa diggante ak Antoine Diome. tey ngay takk soxna gisuñu ko fii ana Antoine sa diggante sa sama diggante xarit la bëggoon na ñëw de lu ko empêché ba ñëwut na xaw ma ko. sañ moom waaw. voilà oui xam nga ñëpp mënuñu ñëw. parce que euh, day am ñoo xam ne ay kilifa lañ yoo xam ne dañuy am euh, lu leen tënk. xew woo xam ne préparation bi yëpp matul une semaine. wax dëgg yàlla ñi ngi ko war a wax ñëpp sax mënoo leen ko wax. voilà li am solo mooy ku ñëw ak ku ñëwut. xew bi jomaa ja kenn xaju fa. nit ñi ñëw nañu jàll na ci jàmm alhamdulilah quoi. ay man fan laa jëm ak journaliste yi <laughs> ay ah, ñun ay bakkootee gaa dindi sa micro yi mm. mais loolu du ci wax. Mm. wax naa ci li ma ci wax ñi kon kon mooy man damaa mas a nekk politicien. yow ku dëgër fit nga. xam nga xaritoog ni léegi da ngeen maa mas a gis may milité ci benn parti. moom waa pouvoir bi bu jóge lañ la xam leen moom bu ñu waxee dëgg rek. waaw ah. parce que gis nañu nga am si problème ñoom ñëpp ñu daal di ñëw. Ah. voilà. ah man réew mi dama cee bokk rek. waaw ah, tey bu ma wootee réew yëpp ñëw nañ man doomu réew mi laa du ma judd jéere du ma madantaan fii laa dëkk. gouvernement bu bees bi ñoom dañuy ñëw ngir liggéey xam nga liggéeyal senegal yow mii ci sa micro bi jàppal na yaa ngi ciy liggéeyal senegal man ci sama commerce bi jàppal na maa ngi ciy liggéeyal senegal kenn ku ci nekk fa nga nekk jàppal na yow yaay état voilà man loolu laa gëm quoi man li ma. yow man bu ma demee ba sama liggéey laaj ma war a ma mu soxla ma ma war a ma war dem gisanteeg moom wax dëgg yàlla def ma ci réew mi lu may empêché ma war a taxaw ak ku mën a doona ah. waaw. sa deret dina la may loolu ginnaaw bi nga xamante ne yaa ngi Antoine ñi yow bala sa deret maye nga yor say surat nga yor say caméra sa deret sama deret man. bokkul de gis nga gis nga. waa man na kaay wax la benn affaire man du ma wor. man ca Sénégal gu njëkk ga Amari Ngoone Sabel ba léegi tubaab be yàq rek mais bu yàqut woon dammeel laay doon mbaa teeñ ca Kajoor sama maama daan jàpp jaan ñi jaay ku mën a tooñ la nag waaw ñu ngi lay ñaanal bu am na xool yoo a sëy bañ na ba ba bañ na ko ba. ba mariage bi yow jaaj naar. jaaj ci kër gi ci kaw ñëwal. yab nga ñu nag. yab ma leen léegi. léegi bàyyi ñu àgg ñu ñu coupé ba ci kanam maanaam Paco yow ah di da ngaa posé question bi maanaam dama ne leen bu leen ma laaj ci beneen jigéen bu dul boo sourire monsieur sourire tontu bu amee beneen jigéen bu ngeen di laaj. dem le diw ma tuuma de man nit ñi yàlla doy na ma seede nit ñi loo leen mën a leeral mënul tax mu leer du noonu xam nga lu am solo ci li ma nekk li ma nekk mooy gis naa ko bëgg naa ko takk naa ko ñëw ngeen fekk mariage bi nit ku baax la man nit ku baax laa jumaa ja fees na kër gi fees na journaliste si ñëw ngeen lu tax ngeen bëgg maa def yóbbu daal ci beneen kii soxla moom mu leer nag mu leer de way way leen di am kumpa rek yéen comme yéen bëggu leen lu leer bëggu leen ah way leen di am kumpa. merci beaucoup Cheikh naa ñu ngi lay na la science élevée. voilà merci beaucoup di la ñaanal sëy bu barkeel ak njaboot bu defar leen ko nag ngeen bàyyi ko nii defar leen mu toog fii am na fii war na am vingt minutes. waaw waaw waaw.

ana seexuna waaw loolu am na. waaw maa ngi nuyu mais jël léegi. salaamaaleykum ana seexuna nañ ma may ma ñëw ci sama géej. ana seexuna nañ ma may ma ñëw ci sama géej. ndax dama koo bëgg a jigéen li ma koy wax mu koy dégg. may ma tuuti salaamaaleykum parce que ma ñëw tuuti jàkkaarloo maanaam ngay njoor a ba si bàcc sama waaj nga xam ni surtout kër maam duñ waxee ren bala ñoo waxati di déwén nga xam ni la jot bi nekk loo bokk ak tubaab bi yàgg la ko wax. moom mën naa lijjanti boppam moom. dama ne la seexu naa tey yaa woote tey dañ lay waxal koom ku du ma sa sa juróom ñaari maam yëpp ay bete bete la nga nàmp ci gileem ba fees dell wàcc ma daan naa la war waaye ku daan da ngay féete kaw giddu ba leen dee bàyyi waaye fulaak fay de borom jom ngay darajee bàyyi jëkk jëkk la yow doo ko déggale da ngaa déggal say waajur moo tax loom jomb la seexu naa nangu naa ku la a ci réew mi nangu ma ku la gën nee naa la ci esprit ci compétence ci fulla ci fayda ci sa tukkër bàyyi la fekk baa surtout kër Baye Ba doon Moussa ñu teg leen loxo ne ko ñoo leen ba naan ko teggil a loxo dama ni la addiya ngoyaan loo ci lekk mu rees seexu naa dama ni la addiya ngoyaan loo ci lekk mu rees réew mi ñu nekk nanga naa ko la mag waaye nangu ma ko la gën nee naa la duma duma xale yu ma xale waaye masali leen jaaxal seetaan si bàyyi ci la xale yi jàngi raaw wàcc ma daan naa ruur waaye ku daan da ngay féete kaw seexu naa dama ni la nga nàmp ci gileem ba fees tel sa soxna sii ci kaw waaw jërëjëf tey yaakaar naa ne xol yëpp sedd na ci diggante Cheikh Omar ak Sohaybu Jalakam ñoom ñaar ñëpp di ay taalibe yi Serigne Touba bokk yaakaar Serigne Touba Xaadim Rasul tey nag maa ngi lay seedal ni la na ñu dégloo tuuti rek ku bëgg Serigne Touba na nga déglu Seexuna avant ngay yëg sooy bi dafa yëg ci kaw képp ku fi ci kaw daane ana géwal yi Seexuna ñu ne ko ñu ngi nii jóge Touba mu ne ñëw leen toog ma jaral de moom mii moo ñu ko xam nga loolu lépp xamal ko waral xaddu xuloog nag taw te kii seen yóbbu coow teen ba gars yi amul waaye gars yi am baax teen baa leen ko yóbbu ngir wut xuloo ak jàmm nag bu mattandoo nga xam da nga du benn yéen ñaar da ngeen a bokk ko leen yaakaar bokk ko leen bëgg muy sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul tey maa ngi koy wax ci kanam Seexuna bi nga dama bi ma tabbee place son bi télécom rek xam naa ni cofeel bi mu la ëmbal moom nga ko mën la ko ñëw ci ay client tubaarkalla macha nit mu ni Seexuna tëjal ñu ma ne ko mbaa jàmm la mun ma fi ñu jëm ku ma jëm ma ne ko foo jëm mu ne maa ngi jëm ci borom xol bu rafet maa ngi jëm ci ak taalibab Sëriñ Tuubaa maa ngi jëm ci ku am jom maa ngi jëm ci ku nangoo liggéey maa ngi jëm ci ku am fulla maa ngi jëm ci ku am fayda mu ne ko ma ne ko seex naa ma ne ko am naa ma ne ak ah loolu tax mun loolu tax ma ne ko comme la tuddee di nga jël ci moom juróom-ñaari jikko seex naa ñu fayee la xaadim borom nit ñi bari si biir seen dàkk maaram xaadim borom nit ñi moom salma ci seen bëgg Sëriñ Tuubaa sa waay di la fayee 1928 la dem Gabon diggante Conakry Maamba tubaab bi ñu ko soo jëlee ci gaal bi toon ñu boo jëlee toon yàlla sa borom mooy dërëm bi xër sa gis gi jëbe taq suuf nee na def bàcc ndewlaay ñu ne ko lu mu ne ko def tan tollay sëf diigul man ak Modou Modou ma fanweeri kilo bàyyi si bur siñ Mbàkke Maara xaalis borom nit ñi mama selmat sin ba mu joowote ëppi dowoo suñu soolal dan juma ban ñetti mag gi màggal ba mag gi juma ji mag gi sëriñ ba mag bi xaalis yëpp xaari bëm nit yi saa xew xewloo maamam bi mu tuddee dañ ko ba jël doomu sama dama ñëwee mu ak gaydel ak daaro ak faaloo ak maam Ndiaye ak Anta Seck ngeen bokk ndey baay siri faalilu xaal aw ba sa jax cam ngeen mene ma kumta xaari bëm nit ñi xaari képp mujjee woote ak pi dongo sirib sawar gën juma ba ñetti mag ko mag gi juma sëriñ ba mag bi xaadim képp maa ngi sëñ Muntaxa Mbàkke bëgg xaat mënu maam ma ca yëgit ba camiñal xat yi ma ca mbéy mbéy xaali borom nit ñi soxna bi di jaxate ko dum soxna xooxna bi di jaxate sëriñ Asan jaxate ak ama soxna jaxate soxna Bàkke jaxate maam maaram xaali borom nit ñi xaadim képp kii xettali jàmm kii jël sëñ Fall jël sëñ di Cheikh Abdoul Ahad di sëñ Bara xaar gépp xaar ba nit ñi waaye nag ki ñëw tey ak ki mu fekk si laa wax ki ñëw tey xam nga kon ko fayee sëriñ Cheikh bu Mariama Jaxate sëriñ Cheikh bu Abdoul Ahad Jaxate sëriñ Cheikh moom sëriñ Salim mu soxna Fatou Jaxate Salim borom nit ñi kii nag Cheikhuna moo jël doom fayee ko sëriñ Salim Mbacke borom ndàpp borom doka borom xabbal borom jëlatul maxwa saari soxna Fatou Diakhaté barki démb dafa def loo xam ne dinaa ko nettali Seexuna mi xolam set dafa tabax kër gu yegg ci téeméeri million ñoo peex kaay ma ñëw mu xoos kee gis ne ko ma ne ko lii loo ci jublu mu ne sama yaay laa ko jox sama ñëw loon mucc ma ci àdduna waaye mucc ma ci sama biir yaay lii moom tey du jël këroog téeméer million jox yaayam ànd ak man bala doos jël këroog trente million jox baayam soxla naa mën a ne. soo ko télécom wala nga ni tey yaa ngi see benn ngeen wala nga ni tey.